dëgg nag ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi yal na yàlla jubal suñu njiit moo xam ñi jiite ak ñi jiite diini ji yàlla def ñoom maanu jub ak ragal yàlla ak yërmande ci askan yi ñoo ànd ngir jariñu askan yi ba ñu kompaloo ngir di jariñoo askan wi e, yal na yàlla tekki fitna yi nekk ci suñu réew te indi fi jàmm te defal ñu e, delloo si xel yi ñi jiite réew mi yàlla delloo si seen xel kenn ku ci nekk xam ni euh, ëllëg yàlla loo fi def yàlla dina la àtte te allah euh, coone alaxira bànneexu àdduna jaru ko yàlla ñu yàlla tekki ci siraatul mustaqim yàlla yàlla yërëmal ñu suñuy dawlu yàlla yàlla yërëmal ñu suñuy néew yëgal ci barsax sayyidina muhammad seen bàmmeel yàlla doon xaarukaay dina allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum sàmmali suñu diine sàmmali suñu ngor ak sunu bokk yàlla bu xajam àdduna yàlla bu ma xajam alaxira Ah, liñ nekkoon di waxtaan ci wàllu temu maanu inna allaha yaamurukum an tuaddu l amanati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adli nicim inna allaha nicim ma yaidukum bi inna allaha kaana samian basira yàlla nee lima li ma leen di digal mooy kenn ku ci nekk nee na lépp loo xam ne àq la bu dox sa digganteeg sa boroom fexeel ba matal ko ci loo lépp loo xam ne àq la bu dex sa diggante ak say mbokk say nawle nit nga xel ba def ci loo man lépp loo xam ne àq la lu diggante sa bopp def ci loo man nee na àq yooyu bu ko fooyee mukk waaw nee na nii ma bi nee ma yàq ngeen xam ni yàlla nag li mu leen di wax seen seen intérêt la de ah yàlla nee na li ma leen di wax seen intérêt la ndax rek la ba ëllëg dafa métti kon yóbbaale fa àqu wóoru moo tax yàlla nee na inna allaha ni'ma li ma leen di wax seen intérêt la de waaw bu leen duggaat sàggat bay yóbbaale àq alaxira ndax xaju fa inna allaha kaana samian basira yàlla nee na nag maa ngi dégg li ngeen di wax waaye maa ngi gis li ngeen di def dara réer mi ci wala ngeen ngeen yóbbaale ko moo tax qissa bi ma leen joxoon dem ci Shurayh al qaadi Shurayh al qaadi dafa amaatal beneen rencontre ak Seydina Ali bi Seydina Ali nekk ci xilaafa gi Seydina Ali mbubb ko moom mooy mbubb yooyu ñuy sol di ko gere Seydina Ali daf ci amul bu mu fonk di tukki mu daanu ci yoon bi benn zammi for ko zammi mooy koo xam ne day dund ci territoire bu jullit l'islam yi lif te du jullit dem ko foree Seydina Ali di dox dox ba ñu ba mel gis gis ko ci moom ni ko ah, sa mbubb mi ngay wër day gis naa ko ci nit benn zami mu woo ko eh, kii maa ko te mooy amirul muminin président yi da ngay nangu rek ngay def rek ñu nangu nangu indi ko jëm ci yeneen détail mais daf koo woo ni ko kii maa ah, moom moo ko de man maa ko sama loxo nga yaa ko moom mu ni ah, maa ko moom de mu ne ko kon nañ dem ci juge ci acca nañ dem ci juge bi ñu ci surax bi ñëwee ci surax al qaadi eh, surax daal di laaj Ali ni ko eh, yow eh, nga ne lan mu ko kii maa ko mu ni zami bi yow kii ko ko moom mu ne ko man bii maa mi ngi nii sama loxo la nekk ñan moom koy jàng sama loxo la nekk moom moo ko moom moom kay moom mooy moom mooy indi ay firnde waaw moom bi mu nekkul ci sa loxo gis nga àtte de moom bi mu nekkul ci sa loxo moo war a firnde lu ko lu ko yóbbu ci samay loxo man maa ko moom maa ngi sama loxo la nekk mu ne ah su waxee ne Ali yaa amirul muminin di waaye bala maa xam ne yaa ko moom foog ngay dil ma seede mu ne ko Xuseen sama doom ji seede la ci eh, sama jaam bii ma àndal seede la ci ñoom wóor na leen maa xamul Surayx ni yow leer na la ni yow àll doom mënta seede bàyyi jaam mënta seede sagam loolu la sharia kon seede yi ma indil doyul weddiwuma nag li nga li moom mën naa nekk mais ci wàllu lislaam mënuma la koo jox bàyyil bàyyil bo bàyyil waa ji ak mbubb mi ba keroog ngay indi seede dem nii demal sa yoon ah waaye li topp ci àll daal di woo waa li dem ñu dem zëm yi del si ci ci xaadim léewoon ni njub dafa baax del si ci xaadim ni ko ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ni ko lu tax mu ni ko dama xam ni seen diine ji diine gënu koo maanu diine ji ku ci nekk nekk en sécurité dama xam ni kii mënoon naa duma mu duma yu métti nangu yëfam defu ko mu ànd ak man ñëw ci juge ñuy àtte waaye loolu sax yow nee na waaye juge bu xam ni man mii nekk jeune mii lépp mu ci diine ji mu may àtte buur bi di jox di ma jox dëkk di payi buur bi anoo ah diine ji nag moom mooy diine dëkk muy maanu lii tax ma tuub dugg ci diine ji bu chare chare woo woo Ali di ko kaay waa sama alal damaa ko ñëw mu dem dox réer ci loxo yi rek mu ne ko jariñoo contre l'islam léegi sëgam jullit la may naa ko ci xol bu sedd koy lii mooy islam kon yàlla yàlla def ay jullit moo tax ñuy ñaan yonent bi nee na nee na alxaakimu maa lam yajuh ñu ko yóbbante ñi yàlla jox autorité nee na képp ku kilif moo xam président moo xam gouverneur moo xam chef de moo xam borom kër gis ka nee képp ku yilif ba pare te jéngoo ci kilifteef gi nee yàlla nee na yaay sama allié ay waay yàlla nekk allié yàlla gën a wóor de nee na fa ida jaara bis bu jàngee nee na waqaltuhu ala nafsi ma ba ko boppam kon loolu ñu nag li ko dalee ci président ba ci wàcc suuf yépp jullit yépp ñoo xam ni ku yàlla teg ci kanamu mbooloo metti na lool waaw yal na yàlla jubal jubal suñu réew te teg ñu ci fitna ji wasalaamaaleykum wa rahmatullah